xanaa sant yàlla rek euh, ndax résultat yi ñu amoon ci élection locale yi euh, dal na xel euh, li ci des kay mooy ñu consolider li nga xam ne moom lañu jotoon a am alliance pour la république mu ngi dox li gën a am farata kay mooy ñu fexe li nga xam ne commencé na xeeñ ci wàllum jubo àndaat nekk benn loolu nekk ci xol yi sax ci xol yi ndax ñu nekkaat benn loolu moo mën a may président la république mu am ndam. Euh, au niveau du département de Thiès au niveau de la région de Thiès. waaw boobu nga wax sax euh, nee nañu Augustin Tine dem na seeti kii euh, Thierno Alassane Sall dem na seeti Augustin Tine yow politiquement lan nga jàngat ci loolu. je pense que erreur politique bi gënoon a rëy bi Thierno naroon a def mooy bu ne ba Fandène te jaarul kel Augustin ndax même bu ñu bokkutoon parti mu nekk nawleem nekk ministre. war bu duggee ci biir dëkk mu jaar fa nuyu ko yokk ci encore mu nekk maire de de la ville de Fandène Euh, te loolu dafay firnde rek li ma wax sànq mooy que dafa jot euh, c'est vrai que def lu baax du wees donc jot na pour que lu ñu waxtaanee keroog euh, ak acte bi Thierno Alassane Sall def Augustin santir ko yaatal xol bi waxtaan ak njabootam Thierno aussi def noonu parce que loolu ñoom ñëpp ñoo ciy gagné. Alliance pour la République dañoo mën a nekk benn am dara wala ñu xaajoo ku nekk jël yoonam ñàkk ñu ñëpp ñu bokk ci yem. te je pense que bu fekkee ne ñu nawlu nañ li président Macky Sall tàmbalee def ñu xam ne te Sénégal mu ngi ci yoonu émergence mu ngi ci yoonu yokkute il faut que ku nekk fàtte sa bopp li Thierno Alassane Sall def Augustin téye ko nekkal ko loo xamante ne lu sax ci xolam la mu waxtaan ak njabootam Thierno Alassane Sall waxtaan ak njabootam honorable député Abdou Mbow waxtaan ak njabootam loolu bu ñu ko defee rek euh, xëy na coow li dina jeex parce que tollootuñ foo xam ne dañuy xëccoo dara euh, kenn rek mooy xëccoo muy président Macky Sall. donc dafa jot pour que loolu ñu rafetlu ko xam ne erreur politique naroon a gën a rëy li kenn waroon a def kon li mu def nii dañoo jàpp ne euh, déclenché na situation bi euh, des na nag pour ñu concrétiser ko sur le terrain euh, te jublu ci élection yi parce que nag bu ñu waxantee dëgg juróom-ñetti weer deux cent quarante jours moo des fii ak élection présidentielle bu fekkee ne élection présidentielle de am en 2017. voilà justement yaa ko tudd élection présidentielle problème mu mandat. Euh, président bi lëmbe na indi na coow ci ci 31 décembre bi wax na ci mais yow ban xalaat nga ci am ban formule nga yaakaar ni buñ ko doxalee woon noonu ci lay gën a baax. Euh, ginnaaw bu ma rafetloo discours à la nation du président de la république euh, lu mu waxoon ci 31 décembre dal na xel mais li gën a am solo mooy jàpp naa ne Sénégal démocratie bi fi am royukaay la ci Afrique royukaay la fépp ci àdduna bi kon man jàpp naa ne li jaadu. mooy ñu fexe président de la république Macky Sall woote penco maanaam li tubaab wax dialogue politique mais mu nekk un socio politique fécond maanaam euh, penco boo xamante ne parti politique yi nekk ci opposition yi euh, société civile personne ressource ak ñi nga xamante ne aussi ñooy chef religieux yi président Macky Sall naw leen woo ñu penco ci quinze propositions quinze innovations fukki innovation ak juróom yi nga xamante ne yooyu la def comme proposition te loolu lu bokk euh, bokk na ci ñu waxtaanee surtout li jëm ci mandat présidentiel bi te penco moom pour mu am il faut que opposition bi xam ne euh, coowal euh, nañu bàyyi prisonnier politique wala leneen ak leneen coow loolu mënta ànd ak penco il faut ñu bàyyi justice def liggéeyam. parce que ci état de droit lañ nekk euh, séparation des pouvoirs dafa nekk réalité ci suñu réew kon loolu dañ ko war a dooleel séparation des pouvoirs boobu kon nañu pencoo Sénégal yi ñëpp ñi ma la wax nii ñu toog autour d'une table président Macky la ma xalaat mooy nañu fexe élection présidentielle ak législative ñu couplé ko en 2018 lan mooy loolu mënuñoo jàpp 2016 ñu def référendum 2017 ñu def élection législative ak élection présidentielle ci am réew mu ndool mu mel ni Sénégal boo nga xamante ne dañ ko teg ci yoonu yokkute li jaadu mooy na président Macky Sall xam ne yéeneem moo nekkoon mu nekk juróomi at te ku ko xam ci yaram ak maanduteem ak bëgg réew mi di nga xam ne lu mu xalaat noonu loolu la bëgg a def mais nag des na la nga xamante ne moom la ko yoon may mais pour ñu éviter nag Sénégal dem ci nañ taal ay pono pour Macky Sall lu mu wax mu def ko war nañoo mën a toog penco ñu jël élection yi def ko 2018 référendum bi mën nañ ko def 2016 bu ñu ko defee 2016 day fekk ñu pencoo ba pare la nga xam ne moom la ñuy def wii bi da koy remporter 2018 ñu dem euh, élection présidentielle législative ñu couplé ko looloo gën euh, ci diir ñaari at ñu def ci ñetti élection je pense que loolu dañ ko rafetluwul la gën daal mooy euh, waa APR ñi nga xamante ñoo bokk parti gëm président Macky Sall di koy jàppale nañ ko dimbale ci li nga xamante ne mooy kàddoom. wax na loolu euh, xam na ndax yoon dina ko may wala yoon du ko may mais nañ seet noo xamante ne day nekk juste milieu ñu pencoo réew mi waxtaan loolu amul kenn ku ko bañ euh, Macky bu bàyyee benn at ci maanaam bu fekkee ne ci juróom-ñaari at la ko constitution bi fal ñu wëlbati ko encore mu may opposition bi ñu préparé wu fii ak 2018 loolu buñ ñu ko defee élection présidentielle législative dañ koy couplé en 2018 2016 euh, ñu def référendum bi ñëpp nooy Sénégal bi ñu mën koo defar. Macky mën a nekk ci ay chantier opposition bi aussi mën cee profité wu pour préparer wu lii bu ñu ko defee dëkk bi da daal di nekk ci jàmm euh, kenn du xuloo kenn du ŋaayoo ñu Macky sal mën a am jot pour dem liggéey. responsable APR yi li ma leen di ñaan daal mooy euh, nañu fexe déjà ñu commencé liggéey bi sur le terrain parce que euh, li des ci élection soreetul te il faut d'abord sénégalais yi xam référendum yi ci lan lay doon. il faut que discours boobu ak le contenu nouvelle constitution bi ni ñi xam ko ñu teel cee waxtaan leneen li ci des mooy nañu juboo ànd nekk benn am na loo xamante ne déjà commencé nañ ko def parce que euh, Thierno Alassane Sall am na tànk yu mu ciy dox honorable député aussi am na tànk yoo xamante ne mu ngi koy dox jëm ci man euh, te loolu du lenn lu dul euh, ñu booloo nekk benn honorable député Abdou Mbow am na loo xamante ne ñu ngi koy waxtaane Euh, maa ngi ànd ak Thierno Alassane Sall ñu ngi liggéey mais euh, jaadu na pour que vraiment ñu ñëpp ñu àndaat nekk benn ci kaw ñu am benn intention mooy falaat président Macky Sall leneen la ca weesu daal mooy euh, coalition benn Bokk Yaakaar mi nga xamante ne moom la président Macky Sall téye bëgg cee demaat ak nouvelle formation politique ak mouvement de soutien yi nga xam ne nañ ci ñëw yokk yokku coalition bi ko yóbbu élection ñu am nee nañ ko duppee mais li gën a am solo mooy ñun ñi nekk APR d'abord nañu xam ne dañoo war a compter ci suñu bopp il faut que lamin seen xam ne responsable APR la euh, mu ngi liggéey na fexe yaatal base am leader politique yi nañ wàcc ci base bi politique euh, doo daw sa base boo fi gëjee rek la nga fa liggéeyoon day yàqu te nag à Thiès euh, ñun seet nañ ne suñu opposant yi ñi nga xamante ñoom lañ fiy wujje ñu ngi ci terrain bi di liggéey donc dafa jot pour ñu aussi ñu xam suñu bopp te la xam ne ñun ci lii lañ jëm bëgg nañ président Macky sal am ndam ñu gëm ko mu nekk lu fula ak lu fayda ci ñun ñu bàyyi xuroo yeeg xaa euh, yenn détails yi daal je pense que ce n'est plus la peine